الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واشكروا ربكم على نعم على نعمه يزدكم واعرفوا قدره وحقه واستعينوا بنعمته على طاعته عباد الله تفرد الله بالعطاء والملك والتدبير إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حصيصا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين والمسلم ينظر إلى ما لله تعالى عليه من منن لا تحصى ونعم لا تعد اكتنفته من ساعة ألوقه نطفة في رحم أمه وتصايره إلى أن يلقى ربه عز وجل فشكر الله تعالى عليها بلسانه بحمده والصناء عليه بما هو أهله وصنع عليه بما هو أهله وبجوارحه بتسقيرها في طاعته وعبادته والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون عباد الله تفضل الله على عباده بنعم آناء الليل وأطراف النهار ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وقال تعالى وإذ تعزن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وكمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة النعم إلى المنعم وهو الله عز وجل وأما العباد فهم أسباب يجري الله النعم على أيديهم وما بكم من نعمة فمن الله والشكر عباد الله مبني على خمس قواعد خضوع الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته وصناؤه عليه بها وأن لا yestaamilaha fi ma yakrah ay yéen mbokk jullit yi ñu ngi sant sunu boroom cant gu amul app cant gu baree baree baree baree bari nam yeyoo ñu sante ko ko ci màggaayu darajaam ya ak kanamam gu tedd ga ñu ngi seede ne yàlla kenn yeyoowul ñu koy jaamu ku dul moom di seede ne muhammad ab jaamam la woon di yonent bu mu yónni ci ñun yal na yàlla julli ci moom ak njabootam ak ñi ko nangoo rey ba ilaa yawmi diin ay yéen mbokk jullit yi ngalla waay ragal leen yàlla ni yàlla yeeyoo ñu ragal ko ko te ngeen bokk ci ñiy sant xéewalu yàlla ci yéen xam leen kattanu yàlla xam leen màggaayu yàlla dimbilikoo leen ci ay xéewalam ci topp ko ay yéen jaamu yàlla yi gëm leen ne yàlla kese kenn ñaareelu ko moo yeyoo ci di jox ku ko neex yàlla moomu mooy borom nguur asamaan ak suuf yàlla boobu moo wëlbatiku lu wëlbatiku moo dalal lu dal seen borom bi ngeen di jaamu mooy yàlla bi bind asamaan yi ak suuf daa di dem ca kaw arasham ba mooy kiy wëlbati guddi ak bëccëg mooy ki nga xam ne moo moom ndigal yépp mooy ki nga xam ne lu ne moo ko bind mooy ki barkeel ca kawe jalla wa ala loolu moo tax ba ab julit bu baax du deñ di xool xéewal yi ko yàlla defal xéewal yooyu nga xam ne kenn mënu koo pekk bokk na jamono bi nga nekkee sa biiru yaay nekk fa toq maniyu sunu borom yàlla fekk la fa di la aar di la wëlbati xalqam min baadi xalq di la bind ci gannaaw bind ba keroog muy pare ci yow génne la ci kaw suuf noonee dañul di la sàmm di la taxawu moom mi nga xam ne mooy alxayul qayyum moom mii dund ca taxawa lépp ba baa ngay dajeeg moom bis si bis yi amul kenn ku ko ñaareel jàll wa ala loolu képp koo xam ne bàyyi nga ko xel doo deñ di bokk ci ñuy sant yàlla foo mën a toll di ko sant ci sa lamiñ di ko tagg foo mën a toll waaye di ko sant ci say cër ci tënku ci ak jaamu yàllaam borom boobu nga xam ne ba mu ñuy génne suñu biiru yaay xamuñu dara mu wërsëgal ñu ñuy dégg wërsëgal ñuy gis sotti ci ñun ay xéewalam tàggatal ñu mboolem loo xam ne nekk na ci kaw asamaan yi ak kaw suuf doomu aadama di ko mën a jëfandikoo ba waa penku ak waa sow di déggante tey ba nga mën a war naaw fu la neex jëm mën a war géej mën a am bépp xéewal mu jógale fu nekk loolu lépp mbokk mi ngi jóge ci sunu borom jalla wa ala borom boobu nag moo ne fi yéeg yéen a ngi may sant xam leen ne dinaa leen dolli fi yéeg yéen a ngi may sant xam leen ne dinaa leen dolli waaye su ngeen demee ba weddi ma naka la ñuy weddee yàlla moo ñu dem ba jàpp ne keneen ku dul yàlla muy xéewal ñu dem ba jàpp ne keneen ku dul yàlla mooy sàmm su boobaa weddi nañ yàlla mu ne kon na ngeen xam ne samay mbugal day mbugal lu tar la mbokk lan mooy tawxiid tawxiid mooy wéetal yàlla jalla wa ala ci jaamu ko comme ni nga koy wéetale ci ne moom rek moo ñu moom tawxiid boobu du mën a mat abadan lu dul ne da nga caa boole xam ne kenn dong mooy borom xéewal yi kenn doo ngay xéewale te kooku kenn doxul sunu diggante ak moom muy sunu borom jalla wa ala kenn doxul sunu diggante ak moom ay yow doomu aadama bi nga nekkee sa biir yaay tuqmani yu kan nga doon ñaan ngiree mu xettili la ci yàlla ba yàlla may lay bët kan nga doon ñaan ngiree mu xettili la ci yàlla ba yàlla may lay loxo kan nga doon ñaan mu lay xettili ci yàlla ba defar sa yuur gi ba mag sëkk mbokk da ngay xam ne loolu amul woon kon yàlla digganteem ak jaami kenn nekku fa mooy xéewale directement loolee da ngay gis ne xatta loo gis ne jaarale na ko ci keneen xamal ne sabab la rek bu mu jaarale ci moom waaye yàlla jalla wa ala mboolemi xéewal ci moom la jóge bu doon te ne am nañu ku ñuy war a bokkaaleeg sunu boroom mooy sunuy waajur waajur yi nga xam ne ñooñu jur ñooñu taxaw sunu boroom yàlla jalla wa ala jaarale ci ñoom xéewal yu baree baree bari sa yaay xaw na joxe bakkanam ngir yow waaye loolu lépp nga xam ne am nañ ko xéewal mu jóge ci waajur ana kan moo ko def mooy waajur yooyu ay jaami yàlla lañu la nekkoon ci xéewal ci yàlla la bawoo kattan nga ñu amoon ba am la ci yàlla la bawoo waaye ndax bu dul looloo am nañu leen ëpp doole ëpp leen i pexe te mus ñoo am doom loolee kon ñu xam ne yàlla ngay delloo cant ga waaye yu mi yàlla wërsëgalit nga dem ba am borom kër ngal la waaye xamal ne xéewal la ko bawoo ci yàlla lay jóge ci poosam di ñëw ci yow lay jóge ci kattanam di ñëw ci yow loolu lépp jàlla wa ala mooy ki ko def mooy ki nga xam ne nii moo ko moom ca moo la moom su la yàlla wërsëgalee njaboot lépp loo xam ne njaboot ga taxawal nañ la ko ñeel leen ci lu ñu lay sàmme xamal ne loolee mi ngi jóge ci ndigalu yàlla loolee mi ngi jóge ci kattanu yàlla xatta tey borom xam-xam yi ñu teg place yàlla nañu xam ne yàlla moo leen moom yàlla moo leen sàkk amul benn xam-xam bu ñu mënoon a xam lu dul ne ci yàlla moo ko moo ko moo ko ko jox comme la malaaka yo waxoon laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimul hakim amul ku xam lu dul yàllaa ko xamal képp ku xam am na ku ko gën a yàgg daara gën koo bëgg xam-xam ca munta xam mbokk julit alal ji la borom alal ji di jox loolee cantug yàlla jalla wa ala lañ ca war a def yàlla moom moo xéewal borom alal jooju lam ko xéewal xéewal ko ab xol boo xam ne may na ko mu joxe ba pare xiirtal ko mu ñëw ci yow looloo tax alhamdulillahi rabbil alamin la muy firi mooy mboole mi cant ñeel na yàlla jalla wa ala mboole mi cant ñeel na yàlla jalla wa ala na doon lu jóge ci moom directement wala lum jaare la ci ay jaamam mboole mi cant ñeel na yàlla jalla wa ala looloo tax ba nga xamee ne ni sunu borom yàlla ni muy walbatee guddi ak bëccëg yonent bi alayhi salaam mas na jiite sahaaba yi benn fajar bi mu paree mu ne ndax xam ngeen seen borom lu mu wax biig ñu ne ko loolu de yàllaa ko yonentam moo ko xam mu ne xëy na ci samay jaam day ku ma weddi xëy na koo xam ne gëm na ma ñama weddi day mooy ña nga xam ne bi taw bi ñëwee dañ ne ak xamoon nañ ko bañ gisee biddiw sàngam fàq rek lañ xamoon ne dana taw te mooy ñi nga xam ne dañoo tënk lépp ci biddiwu asamaan yi comme ñiy jëfandikoo horoscope yi suñ jamonoy tey mu ne amma ñi nga xamee ne ni ñoom a gëm mooy ñi ne mutir naa bi fadlillahi wa rahmati mooy ñi ne tawlu nañu ci ngëneelu yàlla ak yërmandeem mbokk julit sunu borom mi ngi noonu mooy mboole mi xéewal ci moom la jóge mboole mi xéewal moom lañ ko war a sante léegi nag beneen laaj boo xam ne nii bu rëy la mooy moo mbokk sunu borom boobu ana naka lañ ko war a sante sunu borom boobu nga xam ni nee na wallahu zu fadlin ala nas walakin aksara annas la yashkurun yàlla day mooy borom yi ngëneel ci ay jaamam waaye la ëpp ci nit ñi day nekkuñu ñu may sant wareef la ci bépp julit mu xam naka lay sante boroomam jalla wa ala te foog naa ne loo gàtt gàtt alluwo loo gàtt gàtt xam-xam xam nga ne jaa sant yàlla ci jaamu yàlla la bokk bal yonent bi alayhi salaam jàngaloon nañu ne li nga xam ne mooy diina ñaari wàll rek la mooy ashukru wa sabru ashukru nisful iman wa sabru nisful iman mooy muñ mooy genn wàllu jaamu yàlla sant mooy beneen genn wàllu jaamu yàlla bi waaye suma borom nee ne lu ëpp samay jaam duñ ma sant lu néew samay jaam ñoo may sant ana nu ñuy sant yàlla kookee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ koy laaj ndax mbokk julit yonent bi mas naa woote ab mbooloo bu bari ñu reyal ko nag ya ñu togg cere ya daal di bu ñu paree ñu daal di dukkat daal di tak tàccu daal di fecci mu dajale lu mat juróom fukki jànq may leen juróom fukki xale bu góor ndax loolu yonent bi mas na ko sant yàlla laa wallahi mbokk ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu fi jógee abubakar def na ko laa wallahi kon naka la ñuy sante sunu borom jalla wa ala mbokk na ngeen xam ne sant yàlla mi ngi tege ci kaw juróomi mbir mbir ba nga xamee ni nii moo ca jëkk mooy doomu aadama ku ko defal teraanga mu bëgg ko doomu aadama ku la defal teraanga sax di la ko defal fokk nga bëgg ko looloo tax ba la ñuy sant yàlla mooy nga bëgg ko bëgg goo xam ne bëggoo ko keneen ku dul moom heure boo amee ci jaamu yàlla yi koo gën a bëgg comme yàlla wala nga bëggee ko ne yàlla rek bokkatoo ci ñuy sant yàlla jalla wa ala loolee ñu bàyyi ci xel bu baax ñaareelu mbir bi mooy nga gëm ne mboole mi xiiwal yi nekk ci yow na doon ya ngay àndal di sa bët yi sa nopp yi sa làmmiñ yi sa lox yi sa tànk yi wala la nga xam ne moo la wër di kër yaag njaboot gaag lu mën a doon nga gëm ne lii ci yàlla jalla wa ala kese la jóge amul keneen ku ko def ku dul moom waaye i tamit mooy nga sax foo mën a toll sunu borom boobu jalla wa ala nga di ko tagg di ko tagg foo mën a toll di wax ay xiiwalam bokk na ci ay doomu aadama yoo xam ne foo leen fekk ñi ngi jàmbat ca wallahi boo xoolee la leen yàlla defal ci xéewal ci réew mu ñu dëkk cinq pour cent wala un pour cent sax amuñu ko waaye ñuy jàmbat fu ñu mën a toll looloo tax ba ngalla waaye nañuy sant yàlla jàmbat waruñu rawatina sun jamonoy tey rawatina yow mi yàlla wërsëgal nga yeewoo Dakar borom xam-xam yi gëstu pauvreté bi nekk ci kaw suuf dañ naan tey heure boo demee ba nga am foo mën a fanaan am loo mën a lekk chaque jour yaa gën a riche soixante quinze pour cent ñuy dund ci kaw suuf mooy tey téeméer boo gis ñuy dund ci kaw suuf juróom-ñaar fukk ba ak juróom mënuñu matal am fu ñu dëkk am lu ñu lekk ñu ne nag boo dee danga caa dolli am foo dëkk am loo lekk am xaalis boo desal sa poche ngir mën caa jënd yu sew xamal ne yaa gën a riche quatre-vingt-huit pour cent ci ñuy dëkk ci kaw suuf mooy téeméer boo gis juróom-ñetti fukk ba ak juróom-ñett yaa leen gën a riche looloo tax ba mbokk ab julit day yëqiwuli yàlla ci moom di sant yàlla jalla wa ala di xool ña mu tane di xool ña ko ñee loolee mooy tax mu màgg waaye nag gannaaw loolu mooy mbokk yàlla boobu ñeenteelu walla cant gi fokk ñu wommatul ko nag wommatul ko ci ne yàlla may nañu ay xéewal léegi kon ñu ne nañ ko sant mooy lam ñu sant nañ ko ko defal wala njaay ñoo naan ku ëmb sa sanqal ëmb sa kersa waa ji nga xam ne moo lay jox ci alalam di la teral foo mën a toll ruus nga mu santaane nga bañ koo jëf kon it naka noonu sunu borom yàlla boobu dañ ko war a wommatul gën jaa màgge wommatu juróomi mbir bi ibadallah bi ñu sante sunu borom mooy mboole mi xéewali yàlla nga bañ koo jëfandikoo ci foo xam ne neexul yàlla jalla wa ala yéen wolof yéenay wax naan ku la abal ay bët nga xool fa ko neex waaw ku la abal ay bët nga xool fa ko neex yàlla mi nga xam ne moo la may ay bët ca laaju la ci dara du la jox facture ndax waruñoo xool fi neex yàlla ndax waruñoo déglu lu neex yàlla ndax sunu tànk yi waruñoo jëm fu neex yàlla ndax sunu loxo yi waruñu ca jël lu neex yàlla joxe fu neex yàlla loolee kon mooy nañu sante xéewal yàlla mooy lépp lu la yàlla may ci xéewal ci alal ci doom ci say cër nga fexe ba bañ koo dugal foo xam ne ni neexul yàlla jalla waala lii mooy juróomi ponk ci sant keneen ku leen jàngal ne am na neneen nu ñuy sante daa réer ca bëgg leen réeral sunu borom yàlla moo ne woon i'malu ala daawuda shukra wa qalilun min ibadiya shakur benn jaama ngi ci jaamu yàlla yi li ko yàlla defal moog doomam musu koo defal nit te dootu ko defal nit ba ilaa yawmi diin mooy daawuda alayhi salaam yàlla def na ko muy yenent yàlla def na ko muy buur yàlla def doomam muy yenent yàlla def doomam muy buur sunu borom nag ne leen ee yéen njabootug daawuda sant leen yàlla moo ndax yeneen ci yàlla suleymaan la mu amoon ci nguur wax naa leen ne kenn mus musu koo am su ko nee xoon di rey téeméeri nag par jour su ko nee xoon di rey cent cinquante grammes par jour na ay ca gaa yi lekk leen naan leen dukkat leen ñu sant yàlla jalla wa ala mais daawuda nan la doon sant yàlla yeneen ci bi alayhi salaam nee na kaana abuda al bashar ki mënoo ki dàqoon ëpp jaamu yàlla mooy daawuda alayhi salaam mooy ki nga xamee ne nii nguur ga ko yàlla mayoon lépp teewul da daan dem di ñaq di liggéey ci loxoom lépp lu mu jële ci liggéey ba mu xaaj ko ñetti xaaj benn ba mu jox ko dépense famille benn ba mu delloo ko ci matériel bi muy liggéey ñetteel ba mu daal di koy sarax masaakine yi daawuda yeneen ci bi alayhi salaam nee na koor gi gën ci naafila mooy koor kooru daawuda da daan woor tey bu ëllëgee mu dog weer wu nekk quinze jours la ci daan woor genn wàllu at da ko daan naafila waaye daawuda alayhi salaam yeneen ci bi alayhi salaam nee na naafila bi gën a baax mooy naafila daawuda du lu jafe lool nee na da daan nelaw genn wàllu guddi ga taxaw ceeru guddi ga di ko naafila lu jege trois ak quatre heures de temps di ko naafila gannaaw ba nelawaat juróom benneel ba doog a ànd ak mbooloo mi fajar daal di yeewu lii mbokk mooy sant ga daawuda doon sant boromam ba ko sunu borom ne i'malu ala daawuda shukra wa qalilun min ibadiya shakur waaye ka nga xam ne moo gënoon daawuda alayhi salaam di sunu yonenti muhammad alayhi salatu wassalaam ba ko yàlla subhanahu wa taala baale ay bakkaaram lam masa def ak lam nar a def yëkkati ay darajaam teg ko ci kaw yonenti yépp jël xeetam teg ci kaw xeet yépp wàcce ci moom téere bu musa wàcce ci kenn yonent boobu nit ñi daanañ tëdd di nelaw mu taxaw di naafila taamal yow xale bi nga xam ne xam nga alquran benn rakka yonent bi alayhi salaam seede nañ ne jàng na ca baqara jàng ca na suratu al imran jàng ca li nga xam ne mooy suratu nisa ak lu sa lammiñ gaaw gaaw gaaw loolu mënoo koo jàng ci moyen de presque trois heures de temps yonent bi alayhi salaam taxaw di ko jàng boole koog jooyam ya ba tànkam yi di néewi sahaaba yi dem ba yërëm ko ay yow mi yàlla yónni xanaa xamoo da ngaa fàtte aaya bi yàlla wax ne baal na la loo mos a def lan la leen tontu afala akuna abdan shakura ndax man duma doon jaam buy sant yàlla mbokk loolu mooy sant yàlla taxaw ci sa kanamu borom di ko toroxlul di ko jullil ndax jëfi ñi def ci kaw suuf la ci yàlla jalla wa ala gën a bëgg moom mooy la nga xam ne mooy julli mu ne leen afala akuna abdan shakura ndax man duma doon jaam boo xam ne day sant sunu borom jalla wa ala yàlla nañu yàlla boole ci cantaakun yi yàlla nañu yàlla boole ci cantaakun ya koy sant moom bañ koo bokkaaleeg dara waaye di ko sante naka yonent bi ak i sahaabam doon sante yal na yàlla saxal ñu ci saxal ci sunu njaboot wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain عباد الله قال تعالى ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد عباد الله أمرنا ربنا أن نقول بعد حمده والثناء عليه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم والمراد بالنعمة هنا نعمة شاملة لخيرات الدنيا ولخيرات الآخرة التي لا تنفد وهي الأهم والآخرة خير وأبقى ولاحظ أنه قال أنعمت علي فلولا إنعام الله ما اهتدوا ولولا فضل الله ما ثبتوا على الهداية فالمؤمن ينسب ما به من نعمة وما عنده من طاعة إلى ربه ومولاه عز وجل ولا يزعم أن ذلك من حوله وكده وجهده قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ay yéen mbokk julit ñu ngi yee salaat di sant sunu borom bi nga xam ne dañoo war a sax di ko sant guddi ak bëccëg borom boobu nga xam ne waxoon na ni man day joxoon naa lukmaan lii di xam-xam bu xereñe ca mooy sagesse nee naa ko it santal ñeel yàlla képp koo xam ne day sant na boppam dong la la sant ga di dellu ku weddi nag na xam ne man yàlla may ki woom la ñëpp loolu kon mu ñuy jàngal ne mbokk sant ga waruñu koo jëmale kuudul ci yàlla jàlla waala nañu góorgóorlu it xam ne sunu xéewal yi nga xam ne moom la ñu yëg moo mbokk ban xéewal moo gën a màgg ci xéewal yi yaa ngi jàng fatiha foo mën a toll di wax yàlla yàlla nag ñu jubal ci yoon wu jub wa yoon ba nga xam ne da ngaa xéewal ci ñoom ñooñu yàlla xéewal ci ñoom nga bëgg a ànd ak ñoom alaxira ndax mooy milliardaire ya ndax mooy buur ya ndax mooy généraux ya laa wallahi mbokk julit mooy xéewal ga nga xam ne daa ëmb xéewalu adduna ak xéewalu allaxira xéewalu allaxira boobe nga xam ne du jeex ba faw mooy ñooñu nga xam ne yàlla wërsëgal na leen ñu am ngëm gu sell nekkoon ci jëf ju baax ba dee yàlla ngërëmal yàlla jalla wa ala loolee itamit nga xam ne la leen yàlla baaxe woon ba mu leen jubalee saxal leen ci njub bañ dee ca loolu ngay ñaan yàlla gannaaw ba mu la wonee njub mu saxal la ci yoonu njub mu lay jàngal ñaari mbir benn mooy xéewal gi gën a màgg mooy xéewalu diine nga am pas-pas bu sell sax ci jaamu yàlla wallahi kenn du ko méngaleeg nguuru Obama wala di ko méngaleeg milliards yi nga xam ne nii milliardaires yi am nañ ko gannaaw loolu itamit jaamu yàlla ga ngay jaamu yàlla bu ko bàkkoo ci yàlla xamal na ci yàlla la jógee waaye keneen ku dul yow ak lu mu màgg màgg sa bopp ngal la waaye bul ko tagg ba yëkkati ay darajaam ba jàpp na moom kat def na loo xam ne nii dem na ba baawaan ba yow sax xaj nga ci ba nga xamee ne tey jii soo bëggee yàlla gërëm la saxal di ko sant rek moom yàlla gërëm la tey nga ne Aboubacar lim defal yàlla man daal léegi sama mbir yépp mooy sant Aboubacar di ko tàntal di ko toggali cere ki kafe loolee tànk maa ngi ci rek dina am ngërëmal yàlla mbokk wallahi réer munta paase loolu ca loolu mooy la nga xamee ne nii moom la ñuy gis ci sunu société tey mbokk xéewulu yàlla yi débranché nañ ko ci yàlla jàpp nañ ne ñeneen ñoo koy joxe ñu dul yàlla xamal ne ki gënoon ci jaamu yàlla yi mooy sunu yonent muhammad alayhi salaatu wassalaam te borom bi nee woon na ko innaka la tahdi man ahbabta walakin allaha yahdi man yasha ay yow muhammad doo jubal kenn ci ñu la neex yàlla rek mooy jubal ku ko neex looloo tax ba mu wootee ñaari baayam yi sësoon ci moom yépp dañ koy weddi sawara lañ jëm kenn ka mooy abi taalib ki ci des mooy abi lëhëb bi nga xam ne yéen a ngi koy rëbb guddeeg bëccëg moog baayam ñoo bokk ndey ak baay te coono bu ne dañ na ko ci ñoom waaye dugg ci lislaam xéewalug yàlla la naka noonu it lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf xéewalug yàlla la loolu moo tax ba yenent boobu alayhi salaam keroog ci xare uhud sunu borom subhanahu wa taala dane xam leen ne yonent bi day du dara wa ma muhammadun illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalibu ala aqibayhi falan yadura allaha shay'a wa sa yajzi allahu shakirin muhammad du dara lu dul yonent ay nit jaaro ay yonent jaaroon nañu fi ndax bu dee wala ñu rey ko da ngeen di dellu gannaaw ku dellu gannaaw du lor kenn xam leen nag yàlla dana sant ñi dana en fay ñi nga xam ne lañ koy sant ñan ñoo koy sant mooy ñu xam ne yàlla mooy ki ñu war a jaamu yàlla mooy borom lislaam yàlla mooy borom xéewal muhammad du woon dara lu dul koo xam ne dafa ñëw dañuy jàngal yoonu jàlla jàlla wa ala moo tax sunu borom ne mi ngi noonu léegi nag kon mbokk heure boo xamee ne nii dañoo demoon ba benn jëmmi jamono ñu gis sunu média yi Sénégal gépp bokk déggandoo seetaanandoo benn way mën a taxaw daa di feeñal ne ñoom reconnaître ñu sharia ka nga xamee ne moom la ñu sant mooy sëñ diw kookee même buñ ne koo ku ko wax yàlla nga juumoo loolee mbokk musiba la boo xamee ne ni bomb yay dal Libye wala bomb yay dal Afghanistan mu daloon sunu kaw loolu moo gën a woyof la nga xam ne mooy bomb boobu jóge suñu télévision yi la nga xamee ne mooy musiba ba ca nekk du waa ja nga xam ne moo ko wax ndax moom comme daa reconnaître na jàngul dara kooku moom problème la jàngul dara amma borom xam-xam yi nekk ci réew mi këri diine ya muy woote woo ña nga xam ne ñooy doomu ña muy woote woo ba nga xamee ne dégg nañu loolu ba ñu xëyee suba kenn deful déclaration weddi ko loolee mbokk mooy musiba ba gën naa nekk ci musiba sunu borom yàlla ahlul kitaab ñoo fi jiitu woon commencé wax seen njaaxum ya naan yàlla am na doom yàlla mooy ñetteelu ñett ña lu la ñuy wax ko borom bi tontuwu leen def na rek lawlaa yanhaahum rahbaaniyuuna wal ahbaar an xawli an qawlihim al ism wa aklihim suxtu moo seen borom xam-xam ya seen sëriñ sa àndunu teewoon ñu jóg def déclaration ne wax jooju ngeen dégg kéeféer la wax jooju ngeen dégg musiba la ay yéen ndaw ñi bu leen ko gëm ay yéen mag ñi bu leen ko gëm àndunu teewoon ñu wax loolu loolee mbokk da ngay gis ne kon musiba la bu gën jaatar ci ay musiba e yow jaamu yàlla bi may dégg xamal ne sant ci yàlla nga ko war a delloo amul benn xéewal bu nekk ci yow lu dul ne yàlla moo ko def ba nga nekkee sa biiru yaay bi nga ñëwee kaw suuf heure booy wàcc biir bàmmeel heure booy dem bi sa penc amul kenn ku la fay fekk xéewal ku dul sunu borom jàll waala heure boo xamee ne noyyi nga daal di bàyyi mu jàll sante ko yàlla wallahi yàlla rek moo ko man heure boo xamee ne lekk nga lekk gi jàll wallahi sante ko yàlla demal hôpital Dantec da nga fa fekk ay patron yu jaaxaan meew sax mënuñu koo dugal heure boo lekkee ba pare dem wanag wa mu génn ci jàmm santal yàlla demal hôpital da nga fa fekk ñoo xam ne bala ñoo génn dara dañuy dem hôpital heure boo xamee ne nii solo nga sante ko yàlla am na ñu bëri ci doomu aadama yi amuñu lu ñu sol heure boo xamee ne nii dem nga ba daal di am foo dëkkee sante ko yàlla heure boo nelawee sante ko yàlla soo nelawee ba yow sante ko yàlla amul lenn loo xam ne xéewal la gu nekk ci yàlla ci yow nga mën a wëlbatiku naan jërëjëfe muhammad alayhi salaatu wasalaam ci moom la jóge laa mbokk julit wa ma bikum min ni'matin fa min allah lii mooy la nga xam ne julit da ko war a gëm gannaaw ba itamit fu ñu mën a toll ñuy ñaan yàlla moomu may ñu xéewalu àdduna may ñu xéewalu alaxira sunu borom yàlla mooy ki nga xam ne moo ñu ñaanloo rabbana aatina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina azaba annar mooy ñu xam ne yàlla yow yaay maye kon yow rek la ñuy ñaan mboole mi xéewalu àdduna la ci gën defal ñu ko mboole mi xéewalu alaxira yow yàlla la ci gën defal ñu ko lii mooy la nga xamee ne mooy mbir bi gannaaw ba xamal ne sunu yonent sallallahu alayhi wa sallam day waxoon na Muaz ibnu Jabal ay Muaz man day dama laa bëgg kaay ma jàngal la ñaan goo xam ne foo jullee ba pare na nga ko ñaan loolee góor ak jigéen yépp war ci bàyyi xel mu ne ko foo jullee ba pare na nga wax ay yàlla allahuma a inni ala zikrika wa ala shukrika wa ala xusni ibadatika lan la ko wax ndax wax na ko ne ay yow muaz foo jullee ba pare na nga wax téeméeri jërëjëfe muhammad la wallahi am na fi ñoo xam ne heure bu ñu xëyee nee nañ daan def junniy jërëjëfa sëñ diw ndax loolu la ko yonent bi digal laa wallahi dafa na ko ay muaz dama laa bëgg heure boo jullee ba pare na nga ne ay yàlla yàlla nag ma dimbali ci ma lay fàttalikoo yàlla yàlla nag ma dimbali ci ma lay sant yàlla yàlla nag ma dimbali ma jaamu la jaamu gu sell yàlla yàlla nag ma dimbali ci ma dimbali ci ma lay fàttaliku yàlla nag ma dimbali ci ma lay sant yàlla nag ma dimbali ma lay jaamu jaamu gu sell lii mbokk na nga xamee ne du mat lu dul ne sa xol bii day wér ne yàlla dong nga ciy wéetal yéeg ne xéewali ci moom rek lay jóge waaye sa làmmiñ wii it la nga cay feeñal di ko ca wax mooy nga yëg ne say xéewal yi la yàlla defal bari na mi ngi noonu même boo bokkoon ci ñuy bala mbedd mi même boo nekkoon ca fu gën a sori ci àll bi nga yëg xéewal yàlla yàlla defal bari na waaye gannaaw ba cër yi la yàlla may nga tàggat ko ci jaamu yàlla looloo tax xam leen na sant gi gën a màgg ci sant yi mooy bi ngeen di waaj def nii léegi ci néegub yàlla bi mooy julli gi yàlla faratal ci ñun mooy sant gi gën a rëy goo xam ne doomu aadama dana ko def ci ay cëram ci kaw suuf loolee gannaaw ba koor gannaaw ba fàggu alal génn zakat daa ji dem makka lii di arkaanul islam ak la nga xam ne mooy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy la nga xam ne mooy ak sant ñi ngi ñaan sunu borom jalla wa ala yal nañu dimbali ñu koy fàttali ko fu mu mën a fu ñu mën a toll yal nañu yàlla dimbali ñu koy sant fu ñu mën a toll yal na yàlla dimbali ñu sante ko naka yonent bi ak sahabam doon sante yal na yàlla dimbali ñu ca jaamu ga nga xam ne mooy jaamu ga gën a sell allahuma rabbana atina fi dunya hasana wa fi lakhirati hasana wa qina azab annar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab rabbana zalamna anfusana wa in لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين